seen agence de voyage Minan Travel nekkee ci diwaanu Parcelles Assainies unité 7 ci wetu kaas bi déndee ak pharmacie Baraka bi yëngatu ci jaayum billet d'avion réservation de billets réservation d'hôtel demande de rendez-vous umra ziara Fès ay assurance de voyage assurance oto wala moto ba ci sa transport aéroport seen numéro téléphone 10 78 171 0303 wala 76 271 13 13 seen agence de voyage Minan Travel moo leen may li ci yéene kaay chers internautes yu enquête 221 dal leen jàmm dal leen jàmm ci li gën a fas yett yëglekaay yi ñu commencé ko le point actu mi des ci wàccaayu élection yi ak coow li nga xamante ni moo ci nekk yëglekaay bi dem bay xalaat ne boobu moytul élection présidentielle yi laa la wax ñu reporté ko daal di defaat yeneen dialogue te li di mel sax nag booy xool ba xool homme politique yi ci tànk yooyu la jëm lépp ngir bañ a dem ci ay élection yoo xamante ni dara leeru ci en tout cas lu jëm ci processus électoral bi ñëpp ni mu demee na jaarul yoon fichier bi waxi noppi am na ay sénégalais yu bëri yoo xam ne nekkuñ ci fichier électoral bi li mel nag bu ñu ko nëpp nëppalee ba dem ci élection présidentielle yi ñu jëm opposition bi danañ daanu ba xalangu ndax ba tey ji xamuñu ban fichier électoral moo nekk ca conseil constitutionnel en tout bi mu ngi laaj ca Bougane Gueye Dany Mimi ak Abdourahmane Diouf seen démarche yi ñu commencé est duñu dem ba yegg sax ci demande ñu reporter élection présidentielle yi ci a mujjee recalé ca recours toog di xaar conseil constitutionnel ban décision lay jël ci seen recours yi Alioune ci biir yéenekaay bi di dëggal ne xam nañ ne jamono jii ne élection yi lëndëmee ñu waxtaan entre opposition beeg nguur gi moo gënoon fuuf balaa ñuy yegg ci élection présidentielle yi waaye nag weesagul ndaxte dialogue boobu avancé nañ ci trop te favorable na Abdoulaye Fofana Seck di fondateur SDC le Sénégal à la croisée des chemins xamle na ci biir yéenekaay bi ne société bëri d'accord nañu pour ñu defaat beneen dialogue politique boo xamante ni dinañ fa waxtaanee waale na fichier électoral bi waxtaan ci parrainage waxtaan ci dëng-dëng yi nga xamante am na ci wàccaay élection yi yëpp en tout cas di gannaaw parrainage bi ñeen fukki candidat ak benn yoo xamante ni dañ leen mënuñ koo seetlu ba noppi nag daal bàyyi muy jàll ndax lu jege million de sénégalais laa la wax nekkul ci fichier électoral bi koo ci dugal turam ci logiciel bi nga xamante ci la fichier électoral bi nekk da lay rejeté te mel nag toll na ci neuf yoo xamante ne nii moytul duñu participer ci élection présidentielle yi ndax nekkuñ ci fichier électoral bi moo tax ñoom collectif bi ni mel nag déposé nañ lu toll ci ñeen fukki plainte ak benn lépp ngir conseil constitutionnel bi yor yor bi ne leneen lu war a lijjanti kay moo di candidature président Ousmane Sonko bi nga xam ne ñi koy jàppal tànk nag ba léegi bàyyeeguñu ndax jàpp nañ ne rejeté gi ñu rejeté candidature laa la wax teguñ ko ci yoon moo tax déposé nañ seeni recours yéenekaay bi ne bu ñu sukkandikoo ci yoon arrestation bi ñuy laajte nag ca conseil constitutionnel moo tax professeur de droit yi mel ne Sidi Alpha Ndiaye ak Salif Sané ñu ngi leeral ci biir yéenekaay bi recours bi nga xamante ni mandataire Sonko bi dugal na ko sens bi mu am pour ñu nangu candidature Sonko ndax la ñu ko rejeté taxul dara yoon weesul attestation ba mu waroon a jële ca caisse de dépôt et de consignation rek ci li fi xew nekkul ci coobare nag mandataire président Ousmane Sonko bi ndax ñoom dem nañ fa pour jëli ko ñoom administration bi kay ñoom ñoo lànk ne duñu jox attestation le président Ousmane Sonko waaye quittance yoroon nag déposé nañ ko

Sonko nag ci procès Mame Mbaye Niang bii acte guñ ko laa la wax ci kawam ba léegi si laa la wax mu ngi ànd ak droit civique am ak politique am kon nag candidature Ousmane Sonko nekkul luñ mën a rejeté te recours am bii nag mën na cee am sens fekk sa wet ga yéenekaay bi xamal nañu ne président Ousmane Sonko day waxuma la bitim réew mais biir réew mi sax ñi koy jàppal tànk jamono ji pare nañu laa la wax pour campagnal ko levée de fonds yi mu ngi mel ne lu tolloog de francs CFA lépp ngir jàppale ko seen leader bii di président Ousmane Sonko ci élection présidentielle yi ñu jëm direct news moom def taxaw seetlu ci inauguration BRT bi nga xamante ni président Macky Sall na ci wax ay bëgg-bëggam ak lan moo tax mu daal di ci wàllu infrastructure ci biir dëkk bi jàpp ne Sénégal bi ñu bëgg te mu war a nekk Sénégal suba Sénégal bu taaru la war a doon Sénégal boo xamante ni fu ñu i port aéroport tali yu rafet ay yànji pour que yenn dëkk yi nga xam ne dafa tëju ñoom itamit leen a désenclavé yemu ca moom président Macky Sall ndaxte xam leen ne la pour Sénégal wane ne Sénégal dafa dugg ci révolution transport bu bees donte dina métti nag pour sénégalais yi comprendre ko waaye ëllëg la ñuy xam importance su TER bi ak BRT bi ndax gouverner c'est prévoir le verdict yéeni kaay na ci jamonoy pré-campagne bii de candidat wu benn bokk yaakaar bii di Amadou Ba lalal nañ ko basang laa la wax ca diwaanu Diaobé Fulaadu ca Tambacounda yéeni kaay bi ne bu fekkee jamono ji dañuy aaye mobilisation politique Amadou Ba moom mobilisation bu takku lañ ko defal ca diwaanu Tambacounda accueil bu exceptionnel boo xamante ne di bu nu sukkandikoo ci biir yéenekaay bi autorité administrative ya nekk ci dëkk ba yépp a génnoon ci dimanche bii ñu génn laa la pour accueillir Amadou Ba ndax yéenekaay bi xamal nañu ne la dem na ba def benn visite laa la wax ci complexe commercial bu Diaobé dem xooli chantier ya nekk ci diwaanu Fulaadu ñu defal ko accueil bu rëy yéenekaay bi dañu xamal ni Amadou Ba daal mu ngi ciy mbiram waajal élection présidentielle yi ñu jëm source amam def taxaw seetlu ci recours yi nga xam ne déposé nañ ko ca conseil constitutionnel yéenekaay bi ne bu ñu sukkandikoo ci Papa Moussa Saliou Gueye di enseignant chercheur en droit nee na yu bëri yu dugal seeni recours dañ leen di mujjee rejeté ñu ci bëri amuñu sens laa la wax daal jàllaat en tout cas xam-xamam nàcc ci wàllum politique ñëwaat na ci double nationalité bu Karim Wade def ci révélation yu rëy tañuy xamal ni coowal double nationalité bu Karim a yoo xamante ni seeni ñetti doom la am waaye ñaar yépp Sénégal gii la ñu juddoo moom Ibrahima Bakhoum di xamle ci biir yéenekaay bi ne ci jamono boo xamante ni jabaru Karim Wade française la teewul fii la bëgg ay njabootam daal di juddoo mësta force ay njabootam ñu daal di dem ci bitim réew pour amee fa doom moo tax professeur Bakhoum di xamle ci biir yéenekaay bi ne ñiy ŋawti ŋawtee Karim Wade laa la wax ñu ci bëri moom moo leen gën Karim moo leen sax gën a bëgg réew mi yéenekaay bi des ni Sénégal ni ki ñaari xale dong na ñoom ñoo mujjee gañe na Gambie yéenekaay bi ne sunu gaynde yi daal defal nañ jàlloore Sénégal ubbeekat bi ci victoire bu neex Pape Gueye moo njëkk a dugal Lamine Camara ñëw doublé yéenekaay bi ne performance double XL laa la wax la Lamine Camara def ni ki démb et pourtant démb lay sooga football premier kanam waaye jaloore gi mu fa def histoire dina ko bind Aliou Cissé nag mu ngay artu yénn ci ay journalistes yu ñu bañ a catu nag suñu Lamine Camara mi dem na sax bay xam la ne gis naa ñuy commencé bind ay titres yu rëy ñeel seeni journaux waaye nañu tey ci xale bi bañ koo catu l'observateur dellusiwaat ci suñu match si démb nga xamante ne di Sénégal ñetti bal ci dara la dugal Gambie score bu rëy boo xamante ni may nañu ubbeeku kaan boo xam ne dañ cee gën a amaan na confiance supporters yi bég lool coaching gagnant bi nga xamante ni Aliou Cissé def na ko ay spécialiste wax nañ ci ko ci mel ne Pape Fall Malick Diakhaté Henri Camara ba ci Boubacar Sarr Locotte waaye performance sunu gaynde gii di Lamine Camara yéenekaay bi ubbi na ci xët bu yaatu tañuy xamal ne lamin xale la waaye ñamu mag la démb li mu def ci teene bii laa la wax am na mag ñu ko mënul dafa gën a ubbi sax nag tooñante gi nekk ci diggante Gambie ak Sénégal sànnantey xeer yi du gaaw a jeex de ndax am na benn Gambien bu ne Sénégal gii yërëmuñu Gambie saa yu nu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 yéen ñi nekk ci diwaanu Italie jokkoo leen ak El Bachir Faye numéro bi di plus 39 338 916 03 90 bu dee yéen ñu nekk ci diwaanu Espagne Barcelone ak li ko wër jokkoo leen ak Cheikh Sadibou numéro bi di plus 34 602 11 12 28 ñu nekk ci diwaanu France Paris ak li ko wër woote leen ci plus 33 744 75 08 39 yéen ñi nekk ci diwaanu Angleterre woote leen ci plus 44 77 22 08 89 57 yéen nekk ci diwaanu Maroc jokkoo leen ak Cheikh Tidiane Sarr numéro bi di plus 212 681 289 672 li gën a neex nag ci pharmacie Al mooy indi nañ leen ay savon yu bees tàq ngir xeex lépp lu jëm ci wàllum ndoxum siti di defar sa teen ba muy nes nes yi kon nag gaaw leen contacter pharmacie Al Maktoum ndaxte kat wér gu yaram baax na ci doomi aadama jaaraama pharmacie Al Maktoum